Cheikh Sadibou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah, maa ngi leen di nuyu di ngay spécialiste en relations internationales ñu door waxtaan wi ak li xew euh, diggante Maroc ak Algérie euh, jamono ji mu mel ni euh, mbir yi gën na jéggi dayoo tey ci xayma maanaam bu demee ba tollu fi nga xam ne yaakaaruñu ko lan mooy doon conséquence yi ci wàllum diplomatie. waaw conséquence yi nag si wàllum diplomatie dina xaw a euh, yéeme dina xaw a diis mais tamit il faut nit ñi xam lii fa mu jugee. ndax waaw lu ko waral ndax Algérie ak dañu di ay dëkk yoo xam ne c'est des pays frères mosuñu am problème. ba Algérie di nekk si guerre d' indépendance cinquante quatre soixante deux sax Maroc moo ko doon jàppale di ko servir de base arrière di nëbb ay nitam ñu mën a jàmmaarloo ak euh, soldats français yi mooy waa FNL yi mm-hmm. Maroc lañ daan nëbbatu dañu dem ba gis ni bi Algérie amee indépendance ay hommes politiques marocains di réclamer ni a bokk fi Maroc ba lancé sax euh, la grande carte marocaine mm-hmm. léegi nag loolu xawoon métti autorité maroc euh, algérienne yi Assane II tamit mooy la guerre des sables léegi nag euh, loolu dafa tourné woon si avantage wu Maroc mais nag algérien ni ah lii kat jar takk suñu bopp defaru algérien yi dem armé wu militairement nag ñëw pare pour beneen jàmmarloo bu amee mais ñoo ngi woon si diggu guerre froide ndax tamit tourné vers les États-Unis léegi nag bi loolu xewee ñaari dëkk yi ku nekk am méfiance diggante sa morom ay querelle di am algérien di jàppale Sahara occidental Maroc marocain tam di jàppale waa Kabylie boo xam ne day woote autodétermination bi nekk biir Algérie donc am diggante ñaari dëkk yi ba ñu dem ba fermer seen frontière sax en 1994 mais nag après bi euh, loolu di daw ñu gis ni année année yi nii fan yi yàggul euh, algérien yi dañuy découvrir ni Maroc da di espionner par l'intermédiaire euh, de Pegasus mm. benn communication boo xam ne israéliens yi ñoo ko defar mhm. te dañoo gis ni tamit israéliens yi dañoo euh, defaraat seen ay relations diplomatiques ak Maroc mhm. te marocains yi euh, ba benn ministre israélien sax déplacé wu euh, Rabat naan algériens yi ñooy jàppale Iran pour mu destabiliser zone boobu donc ñu gis ni méfiance réciproque am na seen bi projet Pegasus boobu nag gën a yokkaat problème bi seen biir malgré que roi Mohammed VI euh, doon na def discours fan yële yàggul mu ne dañoo war a normaliser relation yi entre Algérie ak Maroc maanaam discours diplomatique bu rafet doon na ko jëmale ci wàllum algériens yi mais ñu gis ni algériens yi tamit dañoo xaw a wu ba tey si marocains yi ndax bi ñu découvrir projet Pegasus bi donc conséquences yi moo nar a nekk ni ñaar dëkk yooyu bi ñu leen seetaanee ba euh, xeex wala jàmmarloo tàkkaat seen diggante mm-hmm. dina indi problème bu mag au niveau de l' Afrique du Nord ndax Afrique du Nord déjà dafa déstabiliser wu Sahel dafa déstabiliser wu te li déstabiliser Sahel comme ni ma ko waxee ci njëlbeen guerre bi amoon libi printemps arabe yi ba mu amee ci Libye dañu gis ni communauté internationale bi dafa intervenir par l' intermédiaire de la responsabilité protégée mm. te responsabilité protégée dafa baax àdduna bi ñëpp xam ko mooy maanaam bu ñu gisee ni benn dëkk nguur nga fa nekk dañoo xool benn minorité joxoñ leen ni ñii dama leen di rey mm-hmm. donc communauté internationale day day day ñaari dëkk yu am doole ni leen jël leen seen armée ngeen dem intervenir ma xeexal ma contre président lañ daanelee nag Kadhafi waa communauté internationale noonu lañ ko naxee ba daaneel ko mm-hmm. léegi nag bañ ko daanelee dafa am ay euh, yoo xam dañ fay transiter donc buñ seetaanee ñaari dëkk yooyu xeex wala problème am seen digg problème bu mag bu ñu mënul résoudre mm-hmm. euh, ba euh, ñu déstabiliser wu kon daanaka pays africain yi pays Afrique Sahel yi ba ci ñun ñii ñëpp ci génn ndax dinañu affecté ñu laal ndax jihadistes si dañ nar gën a am doole dañ nar gën a am ay armes te dinañ gën a mën a sonal suñu dëkk yi te suñu dëkk yi ñëpp xam nañ économiquement taxawuñu économiquement mënuñu xeex xeex bu yàgg boo xam ne dinañu permettre ñu survivre donc il faut que ñu trouver ay négociation entre ces deux pays la mm-hmm. tey ci Thiel euh, bu weesoo li nga mm-hmm. wax nii muy Afrique du Nord du rek moom moo war a am jafe-jafe boo moyul euh, buñ ca mm-hmm. àggee Afrique de l'Ouest tamit war naa am lu mu tiit euh, mm-hmm. Thiel gi ñu gis ci Union africaine noo ko ah. jàngatee waaw li ñu gis ci Union africaine ni mu nee Thiel ñu bëri nag dañu yaakaar Union africaine dafa di Thiel alors que Union africaine si suuf moo ñu doxal ay ay mission yoo xam ne pour ñu jéem a trouver relation entre ñaari dëkk yi pour ñu jéem a leen stabiliser jéem leen wax di leen maanaam zone boobu dafa di zone boo xam ne zone bu stratégique la géopolitiquement dafa di zone bu bu bu tàng zone boo xam ne dañ dañu mérité jàmm daal parce que ñu fay réclamer dafa bëri front Polisario ma nga Maroc Kabylie ma nga Algérie Sahel bi gis nañ voilà dëkk yu mel ni Mali yu mel ni Burkina dëkk yooyu yëpp dafa xaw a tàng mm. donc Union africaine moo ngi si suuf di jéem a trouver ay négociation xëy na nag dañu waxagul officiellement peut-être ni négociation rek am na mais si suuf daal a def ay démarches moo tax démarches yooyu il faut ñu ñaan yàlla daal mu nekk démarches yu concrètes démarches yu responsables par rapport à la responsabilité de ces deux états là par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique du Nord car si ñaari dëkk yooyu bu ñu demee ba déstabiliser wu yaakaar naa ni euh, vraiment du baax daal ci Afrique. yenn observateurs yi euh, ne lii crise artificielle la euh, bi nga xam ne régime algérien moo ko image ci kanamu dëkkam ndax li ni mel ànd nga ci. waaw man duma ko woowee crise artificielle ndax gis ngeen dëkk dafa di gérer dëkk dafa di lu responsable. dafa di lu metti lu diis daf ko bañ ba dañ naan l'état à la compétence de ses compétences donc euh, algériens yi boo gisee yi ñuy reproché marocains yi comme li ci mel ni projet Pegasus bi espionnage bi ak tamit euh, euh, transitu drogue bi jaar foofu yooyu yëpp algériens yi di ko reproché marocains yi ak soutien bi Maroc def ah, au Kabylie Kabylie di benn dëkk buy réclamer un peu plus d'autonomie au niveau de l'Algérie donc yooyu noonu yëpp autorité algérienne yi xëy na dañ dem ba ni lii il est temps compétitivité entre les deux pays parce que dañu di ñaari dëkk yoo xam ne ils sont hyper Afrique gannaaw euh, euh, Égypte puissance militaire Algérie moo ci topp Maroc tamit si cinq puissance militaires yi gën a mag Afrique la bokk donc ñaari dëkk yooyu bi ñu leen naree seetaan ñu jàmmarloo loolu daal euh, du du du lu baax donc ñi ko jàppee xëy na euh, xeex boo xam ne dafa xaw a mm-hmm. waa xeex bu artificiel xëy na crise la euh, mais man du ma ko woowee crise artificielle dama koy woowee daal crise la boo xam ne dafa dafa xaw a nar a daal zone boobu buñ ci jugul gaaw wax ci terrorisme yi euh, ci terrorisme bi jamono ji ñu gis ne euh, ñii di taliban yi dellu waat nañu euh, ci Kaboul noo ko jàngatee ak it ci conséquence fan la mën a toll. yi ak causes yi tamit dañu jar a xam mais Afghanistan il faut nit ñi di fàttaliku ni dafa di dëkk boo xam ne dafa jafe jël. ndax Afghanistan euh, kii di Grande-Bretagne jéemoon na ko daaneel song ko pour am ay intérêt géostratégique yu mu bëggoon am Asie centrale mm-hmm. mais Afghanistan taliban yi dañoo résister woon afghans yi sax je veux dire dañoo résister Union soviétique toog ba soixante dix neuf envahir que mm-hmm. quatre-vingt-neuf la fay mujj jóge ndax taliban yi dañoo intervenir xeex soviétique avec l'aide des mm-hmm. américains ndax américains yi dañu woon union comme que ñun am nañ suñu Vietnam te defat lañ fa am union soviétique il faut ñu wutal ko Vietnam am léegi nag ba union soviétique intervenir euh, foofu ñu gis euh, américains yi ni ku ci mel ni Ben Laden Brzezinski sax secrétaire d' état américain dafa demoon taliban toog ak euh, Afghanistan toog ak taliban yi ni leen jiyaat bi ngeen di def loolu mooy li yàlla woote te loolu mooy lu baax te pourtant tey américains yi boo nee jiyaat ñu ne bandi nga terroriste nga donc pour wan leen ni leen euh, foofu euh, dafa di zone boo xam ne zone bu metti intervenir la ndax ñooñu dañu xam seen dëkk dañu maîtriser seen dëkk loolu dafa ñuy fàttali benn wax bu am solo bu benn ministre vietnamien waxoon dafa dafa ne woon man li ma leer mooy Vietnam Vietnam lay toog malgré li fa américain intervenir mu ne leen man lenn moo ma leer mooy Vietnam Vietnam lay toog donc loolu pour pour wane ni rek tôt ou tard américain yi dañ quitté Vietnam américain yi nag si seen puissance ak seen am doole bi guerre froide jeexe 2001 attentat 11 septembre ñu ne ñun dañuy intervenir yi Afghanistan déloger fa terrorisme ndax dafa di dëkk boo xam ne mooy bay terrorisme dans le monde bañ fa intervenir yi nag ñoom foofu gis ngeen li fa xew mm-hmm. plus de trois mille morts plus de trois cent trois mille cinq cent morts si intervention mais ba tey jàmm amul fa te résistance bi dafa gën a métti ndax afghans yi dañoo gëm seen dëkk afghans yi dañuy di nit yoo xam ne ay conservateurs lañ depuis des siècles ñoom li ñu gëm mooy fonder seen république par rapport à la réalité réalité religieuse et mhm. culturelle donc loolu la Occident xëy na mënagul nangu ba tey te loolu boo xoolee dëkk bu mel ni Iran moo fa xew Iran bi fa caa bi caa fa Mhm. toog fond de la république islamique d'Iran par rapport aux réalités iraniennes et par rapport à la religion mhm. te toog Iran moomu tey mooy tenir tête donc Afghanistan tamit di communauté internationale di ragal nag mooy mu mel ni Iran jël modèle Iran bi def ko def ko ci boppam maanaam créer république boo xam ne ci religion lay basé wu te loolu lañ commencé gis nii nag fan yi booba ba tey ñoo ngi dégg benn branche locale euh, bi nga xam ne nee na moom moo amal attaque yu gën a euh, métti yu nemmeeku at yi ñu wees ndax boobule branche am na lu mu bokk ak euh, taliban yi. waaw la branche mun nañ ni am na lu mu bokk ak taliban yi mais taliban ma malgré seen communiqué yi ñu def fan loolu du seen branche loolu dafa di luy tey suñu xel parce que attaque yi mujj am. branche bi branche bi ko def dafa méngoo woon ak euh, taliban yi ndax taliban yi ñoom bi ñuy débuté ay groupe yu bëri la woon mm-hmm. léegi nag après dañu toog ñu ne pour ñu xeex américains yi il faut ñu former benn groupe si lañ former seen groupe bi nga xam ne moo xeex ak américains yi jàmmarloog ñoom ba egg si Kaboul tey ba nangu capital bi mais attentat yi ñu mujj gis nag branche ba xëy na ma ngay naan moom euh, moom la hmm. mais taliban yi officiellement daal waxagu ci wax boo xam ne mën nañ ni carrément ñii ñoom la parce que taliban yi ñoo ngi exclure seen responsabilité par rapport à ces attaques là contre les américains donc loolu daf ñuy wan ni ñu rek dëkk bu nekk da nga am sa façon sa sa sa gis-gis hmm. sa sa say réalité donc dëkk ay wala ay nit bu ñu jugee bay intervenir ci dëkk war nañ ànd ak tey war nañ ànd ak dal xam ne léegi nekkatul xeex mooy changer monde bi nekkatul dóor ay bal ak rey ay nit déedéet léegi da ngeen di toog waxtaan dialogue parce que loolu yaakaar naa ni moo mën a defar communauté internationale wax euh, jeexale waxtaan bi ak zone des trois frontières tey ñu dégg ne euh, Tchad daal dina retiré lu toll ci six cent euh, soldats am ci force g cinq Sahel ndax li ni mel dina gàllankoor dispositif ba nekk foofu di jàmmarloo ak ennemi yi. waaw G5 Sahel moom mooy ni ma ko waxee sa njëlbeen dafa di zone boo xam ne ndóol moo leen sonal parce que dëkk yoo xam ne. militairement pour ñu intervenir sax jàmmarloo ak jihadistes yi problème la il a fallu ko ay ñu mel ni France dëkk yu jóge tugal ñooy ñëw intervenir fii pour xeex suñu place mais nag li ci gën a yéeme mooy Tchad Tchad dafa di dëkk boo xam ne puissance militaire bi mu amoon Tchad dafa di dëkk boo xam ne moo doon def face à ces la euh, ces djihadistes là dafa doon dëkk boo xam ne sous UDSD bi surtout moo doon jàmmaarloo daal jàmmaarloo bu métti moo bu gënoon maîtriser zone boobu léegi nag bu ñu demee ba gis ni dafa commencé retirer ay soldats am loolu dina tey suñu xel te dinañ indi njàqare suñu bii ndax euh, vraiment zone boobu Euh, dafa di zone bu stratégique boo xam ne géo stratégiquement zone bu bu bu boo xam ne waruñu ko seetaan muy déstabiliser wu moo tax nag ñun pays africains yi il est temps que ñu jël suñuy responsabilité suñuy matuwaay par rapport ak li xew ci suñu dëkk yi il faut ñu mën a am armée yoo xam ne dañu am doole yoo xam ne mun nañ intervenir sans personne armée yoo xam ne bu ñu bëggee intervenir fenn conseil de sécurité da koy valider ñu dem jëlee fa li ñu fa war j jëlee mais tant que ñoo ngi toog di xaar ñee jóge tugal ñëw xeex suñu place loolu échec lay mës a doon parce que intervention waa tugal yooyu di def fépp ci àdduna gisu leen ci benn réussite muy ex Yougoslavie muy Afghanistan muy Mali muy feneen gisuñu ci benn résultat boo xam ne tax na ñu ne tey jàmm am na. Hmm. donc il faut ñu dem vers l' essentiel loo xam ne ñu ñuy demal suñu bopp ak suñuy réalité parce que Tchad ni muy def noonu di xeex ak jihadistes yi di leen repousser hmm. mais yeneen pays africains yi mën nañ ko. Hmm. parce que ñoom ñoo gën a xam réalité donc ñooñu bu ñu boolee seen doole. jàmmaarloog ñooñu xam ni ñuy contrôler foofu mais yaakaar naa ni jàmm dina ñëwaat loolu loolu moo doon l'essentiel. ñu lay jaaj jaajëfal bu baax a baax euh, Cheikh Sadibou Ndiaye. maa ngi leen liggéey gërëm di leen sant.